WAC TV, toujours au service de la population. Contactez-nous sur ce numéro 77 552 50 94. alaikum mbokki Sénégal Assalamu alaikum mbokki aduna Nous sommes tous ñëpp ku nekk sa Nous ak sa santé. Nous ngi fii Thiarène Thiarène Guissé ñëw seet champion benn ndaanaan bi nga xam kenn di ko surtout fii Saloum ñu koy wax fii si kawlak nangaan waaw muy benn champion bi nga xam ne toj na si làmbu façon lamb yu ne bëri na lamb saalum si surtout si foofu lañ ko gën a xamee encore tamit mu ngi si arène bi mu ngi fay def lu leer waaw am fa ay combat yoo xam ne bëri fa lu doy waar waaw tey moom lañ ñëw seet si fii si caareen gisee waaw di ko nuyu di nuyu mbokkam yëpp ak képp kuñ fi fekk di ko wax asalaamaaleykum champion bàyyi ko mu siyaare mu présenté wu wax moom la kan wax ñu tuuti si moom bisimilah asalaamaaleykum mbër waaw d' abord sama gars yi ñu ngi leen nuyu xam di sant yàlla julli si di xam nga gërëm suñu ñaari waaju xam di nuyu saalum Saloum yëpp xam nga képp ki saalum Saloum ma la nuyu di leen gërëm xam nga di nuyu sama waa dëkk wàkk nguna parce que wàkk sama dëkk la waaw yéen xam ngeen si dara maa leen nuyu di leen bëgg xam nga parce que awma seen fay ko xam nga làmb wàkk lañ xamante xam nga mais ñi déggante téléphone ngeen ne da ngeen ñëw yi seet ma defal ma émission xam kon aw seen fay maa leen sant bu baax di leen gërëm di nuyu waa Wakkungur yëpp di nuyu seen ñoom ma Ndiaye Jinne ak sama fan yi nekk Wakkungur yëpp xam nga képp ku nekk wàkk di ma bëgg ñoom waa gars yi foofu ñoom Moussa a baax parce que aw ma ma bëgg billaay walaay bi rek wane na ko xam maa ngi fi bëri combat mais mobilisation bi macha allah xam maa ngi sant yàlla xam nga di gërëm Saloum Saloum yoo xam nga di gërëm sama waa dëkk waa Thiarène Cissé ndax man aw ma lu may Thiarène Cissé xam nga fi laa juddoo fi sama parents yi fa nekk xam nga maa ngi tamit aw ma 26 parcelle aw ma seen ndax a baax xam nga aw ma seen fay a baax yi xam di gërëm sama doomu nday Bamba waaw Serigne mu ndaw da doon gën tey ko nuyu baax a baax sama doomu may bëree moo may sotti affaire yi waaw mais maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm xam nga barke Seydina Mohamed ah dégg ngeen ko loolu mooy présentation Robert ki nga xam ne moom mooy champion Saloum bi mun nañ wax ne sax léegi champion Kaolack nangaan ak lu ko wër waaw ndax yàgg na toj la mu Saloum yaa di dem tamit ba si arène nationale di fa bëree loo xam ne carrément wane na fa boppam wane fa njàmbaarteem mu ngi soqeekoo fii nga xam ne fii mooy caareen gise ñëpp fii lañ ko xamee fii mooy cosaanam fii mooy dëkkuwaayam waaw tey buñ doon wax Robert ñu ne kan mooy Robert loo ñuy wax. waaw robel benn boole woon xam rek bu nekk caaral fii xam fii mooy sama dëkk xam sama papa yeeg sama parents yëpp dëkk xam man fi juddoo fi laa yoroo xam nga lu mooy ne si ay numal yi bëri bëri naa ay wàkk nguna bëri naa ñooro ay ndrameskal xam ay kër ma jibeen fu ne gars yi tëgg na may combat ma dem foofu après si laa dem Dakar na xam nga dugg si arène bi nekk parcelle foo xam nga waa parcelle tamit bëgg ma dañuy génn génn mobilisation bi dama jàpp xam nga boobu 26 ngi leen baax di leen xam nga laa demee di bëri arène maa ngi def huit combats am ñaar defee si arène bi waaw. Robert kañ la commencé bëri. non ay ay ay 2017 laa commencé bëri arène quoi yàggu ma bëri arène 2017 laa commencé bëri waaw mais maa ngi sant yàlla bu baax a xam nga boobu mën nañoo wax ne yaa gën a yàggul léegi buñ koy xayma ñaata drapeau la ñuy xayma kon. waa la Robert jëlegu. man fii ci Saalum Saalum. Saalum moom lu mu fi jël si ay drapeau bëri xam nga parce que fii ay même arène bi sax arène bi sax am naa fi ñaari drapeau bëri dóor waaw mbapat nu am naa fi drapeau bëri yaa ma gën a xam waaw lamb moom tey fii nii boo boo boo duggee Pôle Nord Pôle Nord ba Gambie su mooy béyee Saalum kër mu ndongo li ma def ci làmb Saalum kenn def parce que man instant yi boo demee Dakar tey ñëpp xam nañ ma xam waaw ñun ay booy leen diggoon ko xam nga làmb moom dañ ci dugg pour am fi moyen xam liggéey rek mais dugg moo fen rek moo tax ñun suñuy bëree diñu wane lu mooy yar ak teggi xam nga liñ ñëpp xam nga xam nga diñu yàq làmb xam nga diñ def na ko su duñu xam nga waaw te tamit daa am ñoo xam ne dañuy bëgg diñu jàppale ku ci mel ay ñoom grand Samba xam ay ñoom grand Bass xam nga dañuy sonn si parce que làmb dafa métti yoo xam ne foog balaa ñuy gën a xuus si émission bi ñu jàll si doom ndeyam ki nga xam ne moom mooy Bamba mu présenté wu wax ñu tuuti si Robert balaa dara asalaamaaleykum Bamba. salaamaaleykum. yaa salaamaaleykum ñëpp. bëggee ñëpp wax dëgg yàlla Robert moom sama gaañ la wax dëgg mën naa ne sax man ak rakam ñoo doon ànd mais wax dëgg yàlla instant yi moom man ak moom la mu doon champion bu am bu nekk ci yoon daal waaw wax dëgg ñi ànd si mbappat yeeg arène bi lépp waaw champion la daal moom wax dëgg yàlla moom xale la te am na jom waaw wax dëgg mais nag euh, bu ñu rek wax gi moom moo xaw a mais ndaanaan la daal moom fii moom Pont Noir ba Gambie moom mën naa ne sant bi ni benn champion la am waaw boo jëloon champion yëpp gannaaw Bébé Saloum fii nii li mu fi daf si làmb amul keneen ku fi daf fi nii te xale bu ndaw la xale bu ndaw la 2017 huit combats ren six victoires deux défaites nga loolu wax dëgg yàlla champion la daal wax dëgg yàlla sa kaw rek waaw di bëggee ñëpp nag waaw tey bu doon wax si estafu Robert ak manquement am ak ay combat façon bëreem tey loo ñuy wax si côté mank manquement am manquement am euh, façon bëreem non moom bëreem wax dëgg yàlla moom bëre Sa la rek waaw bëre la day ñëw bologi lépp rek dem benn gën a métti mooy fan yi combat bi ñu ko togaloon Bébé ñëwut. pour adversaire bi Bébé Zirah Baye Balla dafa ne si groupe bi di wax ñoom groupe WhatsApp yi waroon bu ngeen gis beneen Robel waaw champion la daal wax dëgg yàlla bëre mom bëre moom macha allah man na bëre xale la te am na kii daal am na li ñu wër si mbër daal mi ngi ci moom waaw sa kaw sa kanam daal bëgg ñëpp nag waaw ko gis nañ ne la waa guna waa ko moom ngi leen di amuñ seen fay Mondiaye Jinné waaw ñu ngi lay béggee bu baax a baax dëgg yàlla mi ngi siy jàpp bu baax a baax waa ko moom surtout arrêt jegataay bi ñoom Moussa ñëpp waaw ak ay ndaanaan lañ daal gis nañ mafia bi ñëpp ñoom ñëpp li ñuy doxalee gis nañ lépp waaw wax dëgg yàlla même caaranti amuñ seen fay daal góor ñi jigéen ñi ñëpp ndax bu amee combat moom kenn dootul nelaw waaw ñëpp ngi ñaan waaw kenn dootu toog daal wax dëgg yàlla ñoom ma ngay gaay yi fii ñoom uus ma ngay séeri maam jaar waaw wax dëgg mi ngi nalee waaw du ma bàyyi ma kii ñëpp kenn dootu toog ñoom bàyyi bala gëlës gars yi ñëpp dañ kii kenn dootu toog daal fu nekk dañ fa dugg ndax moom da koo jaar borom baax la xol bee rafet daal muñ cee wax même buñ noo wax lépp daal fi la ñu fanaan waaw la daal moom. waaw mbokk yi ba tey ñu ngi di fàttali ne ñu ngi ci Wack TV ñëw seet si fii nii Robert champion Sal champion di Saloum. ah di leen wax ne ne carrément que ne ngeen suivre émission bi après nañ leen gën a xuusal si biir waaw ngeen gën si am leeral si ay jaar-jaaram ak ay kombaam ak ñu mel ak estafam ak waa dëkkam tamit gis nañ ne tamit waa dëkk bi tamit teertu nañ ko ñëw nañ ñoom ñëpp génn nañ mobiliser wu nañ ñoo ànd ak seen doom seen champion ki nga xam ne moom mooy champion di saalum muy ñu gën ko xam si làmbu saalum wante tamit si arène bi tamit mu ngi ciy def lu leer waaw ba ñëpp di ko seede macha allah. waaw tey bu ñu nee Robert waajaay combat nan la koy waajee biir dëkkam ak maanaam ñu ko wër ñoo koy jàppale wa ilaa moom ci fu mu nekk wala moom boppam kese nan ga waajee say combat booy dem. waaw mais damay bëggee sama doomu na mëgëy xam nga mëgëy mëgëy géey xam sama xarit la moom maa moom yàgg nañ koo xam depuis parcelle moo doon sama président fan club bu góor bi xam nga. Bamba xam na fi dara Sëriñ Maam Jaara xam nga ñu ngi koy nuyu di ko béggee sama waay su ma amee combat tamit day jàpp si combat jënd bi mobilisation xam nga man man man lamb si laa nekk mais <clears throat> gars yi ma desee jàppale koo xam nga man nag caaral la dëkk fi laa juddoo fi laa yoroo mais nekk naa xale wax ne respect laa woon ñëpp xam nga dama yar dëgguma sama mais dama am yar xam nga ku la jox cër mais xam fii suñu amee combat gars ñooñu war di jàppale koo xam nga lamb jàppale laaj ñun champion lañ parce def nañ juróom-ñetti combat lañ bëri am ñaari defe loolu yëmbul ay bëri nañ fa façon bu nekk bëri nañ mais gars yi <clears throat> bi ñu amee combat boo ñun ñu ñuy dëkk mais fii bi ñu amee <clears throat> ñooñu war na jàppale quoi monsieur le ku si ne ay ñoom père Gadou Fall suñu amee combat dafa ñu war a jàpp ñoom Lamine Dieng ak maire Kër Madiabel ñun ñooy représenté Saloum fii tey fi ñu toog dañuy tudd ay Ndramé Escale ay Kër Madiabel wax nga kon gars yi fii jàppale moo des quoi gars yi war a jàppale ñu ne caarañ ci jigéen ñi daay moom bëri fii dañ doon génn di ñuy support xam ñoom amu amu amoo seen fay koo xam mais booy tamit su ma amee teew xam mais yeneen gars yi ñoo war a jàppoo comme su ma amee combat ñuy jënd ay ñaari bi ñetti bi loolu yëpp si façon jàppale ko parce que xale su nee si yoon da nga koy jàppale xam mu gën a am am ambition koo xam parce que làmb jàppale laaj yaa ma gën a xam waaw tey bu ñu doon wax ci Robert tuuru Robert fan la tuuru Robert bi jógee ak lan nga ñuy wax ci Robert. waaw man maa ngi tuddee sama bopp Robert Diouf waaw papaay Mamadou Ndiaye ñëw Ablaye Ndiaye Mohamed Ndiaye Robert laa tuddee sama bopp waaw Mohamed Ndiaye Robert laa tuddee sama bopp waaw papaay ñoom ñoom ñoom Mamadou Ndiaye moom laa tuddee sama bopp quoi waaw Mohamed la woon champion la woon moom laa tuddee sama bopp waaw mais en tout cas maa gars di jàpp si combat yi waaw parce que ñun jàppal rek lañ manqué waaw yi boo xoolee combat yi soog la si ñuy bëree fii gars yi dañuy teew xam di ñuy jàppale xam nga te bokk ñu ñoom te fii lañ dëkk tey fi ñu ñu amee combat même bu dee ñaari carte war nañu ko jàppale parce ñun nag diñ forcé kenn na ko jàppale parce ñun dañoo gëm suñu bopp waaw luy tax nit ñi topp ñun ñoo koy wane tamit ni su neexee si yoo xam ne parce que fu mu toog sa gox lay représenté ko xam nga parce que làmb jàppale laaj ko xam waaw instant bi loolu moo des waaw monsieur le maire daal su ñu amee combat parce que ñun tamit su ñuy def ay politiciens yi ñun dañuy ñëw si sëni fi booy di leen jàppale xam kon su ñu amee ñun tamit dañu war a jàppale si liñ bëgg xam waaw loolu mooy message bi quoi mm-hmm. waaye champion bi moom mooy wax noonu mi nga xam ne moom mooy Robert champion du Saloum man moom champion du Saloum laa euh, a a di fa def lu leer nañ waaw ba ñëpp di ko seede kon nag moom nag mu ngi wax wax wàllu jàppale di lancer appel tamit mairie Ndramé mairie Wak Nguna ba département Nioro bi yëpp Kaolack yëpp nak waaw ñu ngi leen di woo nak ngeen ngeen jàppale ñu suñu champion bi gën ko pousser gën ko bu si ay combat am ak ci lépp lu soxla rek si côté stafam ñu jàppale ko ngir yàlla war a suur yi parce que mu ngi def loo xam benn bu ko def moom rek lañ gis ne mbër boo xam ne ne carrément mu ngi jógee Saalum ngemb dem si arène nationale bi du ñu indi ay trophée trophée huit combats deux défaites xam nga ne loolu kon champion kon champion weesuwul loolu waaw léegi kon ñu dem jàll si xaritam bi mu présenté wu ñu xool waaw grand Ousmane salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu leen di siyaare di leen nuyu di leen dalal. bu ngeen di xoo ñu ci bis boo xam ne sawar nañ ko lool xale xale bi yaru vraiment ñun ñëpp jox nañu cër jox nañu respect dëkk bi yëpp ñu ngi ci gannaawam daal doomu dëkk bi la bàyyam vraiment bépp jéego bu xamee bu war a taxaw taxaw na fa booy bi noonu li ñu koy bàyyi mooy di ko ñaanal daal yàlla dimbale ko ba combat bu am daal suñu borom jox ko ci ndam di ñaan xale dëkk bi ñu nga xam ñoo nekk ndakaaru yëpp ak ñi nekk fii parce que kii fi ne ñoo ko mën a dooleel quoi parce que moom lim man mooy gémb dugg ci biir géew bi moom ñoo ko mën a téye li ñu koy téye mooy di ko jàppale su amee combat ñëpp def délégation dem stade fees ci kaw yëngal ci kaw moom bu gasam ci suuf def li muy def coow li jeex woon te it béy bu am jom bu xasee géem bu amul leen lu mu gëm lu jàpp daan combat ñaari combat yi mu wax ne ñàkk na ko yëpp gëm boppam ak bay xel ñi ñi ci kaw moo ko ñàkkaloo ak ak jom du arrêté du tricher man xam naa ko seeyaat naa ko ndax dama naan bàyyi ko sama kër yëmbal dem stade di ko fekk moom xam na ki dara bu am an combat yoo xam ne bu amaan man man ak sama benn gaan Aliou Ndiagane délégation def comme xant ak booy combat leen yóbbu leen stade te ñu ngi fii nag météo suñu xel fi mu toll mi ci moom booy bu am jom la boo dégg na ko mu ñàkk combat yi ni yëpp jom ak fit ak fulla moo ko tax mu ñàkk ndax mbër dañuy dugg ci combat di gis am ci combat bi mu def sotti libéré ba combat jeex mais moom loolu du ko def combat bu am de day dëggal boom bëri li ñu ko ñaanal daal mu ñu xanaa ay grand lañ yàlla ko yàlla jox ay ndam yu bëree bëree bëri ba fi ñuy dégg Modou Lo Balla Gaye ñu da ko fa dégg ndax ñun ñu ngi ci gannaawam te bu fii nga xam dëkk mi commune Ndayane boo xamante ni dañuy toog ci télé ko di ko nekk ñu neex yàlla na ko yàlla may ay yu bëri te combat yëpp nekk ndam bak suñu fal kon te kontaan nañ moom baax daal wasalaam yéen yéen nag kontaan nañ ci yéen ndax li ngeen def rafet na trop ndax nit ku nees boo sañoon tey ji bis bii yaa ngi ci mbir da nga ko am toog say biiti nawle te la béye ko fële ñëw fekk na ci sa bi biir dëkk dalal la vraiment di laaj xalaat ci nit ñi lool neex na trop ki ay ñu ko ñaan dal fep fu mbëri yegg fep fu champion du yegg yalla na ko suñu borom yeggale rek Seexul Xadim kontaan nañ ci mom bax baax jërë def jëf macha allah kaddu yi rafet na de ngeen témoignage ñu def ci Robert ki nga xamne mom moy champion di Saloum ah, ndaanaanu kaolak bi waaw gaay nga def ay témoignage yu rafet ci mom mbeur bo xamne amna fulla la yaru na ñëw na respecté na combat jox na ko gëdd même buy def tournoi yi fii si Saloum sax ñu ngi gis comportement am du def benn bruit du def benn dégât nekkul di xasante ful la lay def ngemboom nekk si ay cumbukaayam ba làmbam jot mu bëree lu muy bëree jaan ci ful la dem ñibbi loolu lañ ko xamee macha allah yàlla na ko yàlla defal cat defal ko jàmm waaw di jàll si beneen copain bu mu defal ñu présentation mu wax ñu tuuti si Robert lu mu xam si moom simila sëñ waaw maa ngi siyaar bu bëggee gaa yab siyaar bu wér a wér kii moom man maa ko xam man yaakaar naa ni ma ko xamee fii dëkk bi ah kenn xam ko noonu ndax man bi mu tollee ni booy bële maay dem ci àll ba tegal ko xaalis muy bëre mu mën a bëre loolu nekk xale ñeme entraînement yàggu sax si yoonu làmb yàgg na yàggu te lum ñàkk fi dem moo ko xeeñ sax laay wax nii ndax gëm boppam ngëp ci lañ koy daan waaw mais du yàq làmb fonk na nit ñi fonk na entraînement li tax nag chance la chance boobu lañ koy ñaanal yàlla may ko ko waaw mais xam ne daal lam moom lu mu ci am jomb ko waaw lu ci am rek jomb ko te ñun ñu ngi koy gis fu sori buñ ko jàppalee ñu ngi fu sori ñi nga waa commune bi nag ñëpp ñu jàppale ko ndax kii mérito la loolu si làmb waaw man na xam naa ko bu baax ndax bi muy débuté fii nii man maa ko doon yóbbu di boole ay xale ñëpp lay daan ma ne talang ci mom après man ni ko doon ñaax pour mu dem bari ji si la bokk sama rak am ak sala moy kiyam moy togon fi doon waaw ànd ak moom waaw xam nga mbir mu ne am ñu ko gëna mëna mën nak mais man zoyna naa ci loolu bu reuy xam naa ko waaw loolu lañ koy ñaanal am dal mo sportif la mbeur la amna na talent talent boobu dina feeñ nak waaw nañ ko jappalé jàppale promoteur téré nañ ñëw xamni ku ko tëggal do do perte ndax moom moom commune yeneen commune sax li fa mën a am bari fa dëkk mënuñ ko am waaw muy kar ma jébal yeneen commune yëpp laa lay wax nii ndax day ñëw li gën a jafe si mbër lay def day bay ko Dakar jaar na le di bëre ba jël fa tournoi ñun duñ ko yëg suñ bay ko fii dem kenn du des mag ñoo xamante ne nii sax laay wax ni maam seen kii fii nii xam nga làmb moom mag ñi am na yitt yoo xam ne léegi sax day tax duñ ko mëna duñ fa mëna dem mais dañ dagg dañ dagg luñ ñu japp dañ ko dagg dem dem big boy bi ni loolu yombut amna fit amna jom amna yek ci nit ñi kon li dess moy sax bi dal yalla nako yalla yok te promoteur ñu leen woo ñu jàppale ko waaw diko teggal combat waaw loolu lañ ci amon mom lañ ci wax. yow lo fokk euh, moy jafé jafé Robert jafé jafé bu gëna jégé ci mom ak lu ngeen gëna soxla pour Robert. dimbal rek jappalé rek maire bi nako jappalé ki tay ji bu bu bu fekkoon élection dafa ñëw fi mu taxaw ku mu joxoñ benn du sapé bone am nañ carte fa lañ jëm lu mu ñu ne wa and leen mom mom lañu andal kon bu ba lañ ko jappalé moy kessé mom la xaw udara, mais manki wu dara talent ba nga fi lepp nga fi lamb nak sans la mok football yam nit dina am talent bu amul moyen dina ëpp ni talent sax mu jiitu ko ci kaw wa te mbaru commune mbaru ñëpp la mbeuru Kaolack mbeuru ñëpp la. Saalum amul mbeur bu fini ni bo xolé làmb Fatick ngay tuddu Dakar def ne léegi bo me championnat bu melni nii championnat bu mel ko nañ ko fonk jàppale ko. surtout Saalum surtout ndaw tassem ba léegi affaire dafa xaw wacc nga am boy bam talani nek fini nga mu man am combat nga man dag lu mat 5 card lu wañ dara beneen commune def non way loolu moo xaw a des loolu la ñaan gaay ñu jotal ko ñu jàppale ko nga xamne dara jomb ko ci làmb mu ngi jàppale am championnat mak